رفع إنك الكمال شوف برفع القدس المجال شيخ برفع إنك الكمال شيخ برفع القدس المجال شيخ برفع إنك الكمال lépp ngir ñëw bi Bamba taas la raw la raw yaa kamaal yal na nga dellee berex mu dufaal seer njaay biran gi bir tengaay kur jëg baay Yàlla faal biran gi bir tengaay kur jëg baay Yàlla faal Alaaji Faal Mbàkke xam na la Cheikh Ibra Faal Alaaji Faal Mbàkke xam na la jumaa jëw jaral na la lampa ngi nii tiim na ku ne

yàlla dogal ñu napp wax ñoo tàmbale fii ci Paline waaye yëmaliñ ko dañoo fas yéene par ajjuma ju njëkk ci weer wu nekk mhm. ñu dañ ci quartier setal comme set wécc ni ko sëriñ bi bi insha allah waaw waaw loolu demee waaw ok ok kon kon bii mooy ñetteelu yoon bi ngeen ngeen ngeen ko tàmbalee boobu ak léegi bii mooy ñetteelu yoon waaw insha allah waaw xam dañ ko tàmbalee Daaru Minam ci Xudu Mbàkke ah. maanaam ñëwaat Paline nag tey jii ah. fas yéene loolu rek bu ñu jógee ci dañu xam kañ la ñuy war a demaat waaw li ñu suñu pas-pas ak mooy fu ñuy liggéeyee la la fay wàllu xéewal nga fa lañ koy liggéeyee ah. ngir ñe murid yi fa nekk ci barku jëriñoo ko waañ waa nga ne léegi fa koy liggéeyee ah, ah, mooy pas lan ngeen di xaar ci yéen bokki taalibe yi nga xam ne ñu ngi bitim réew ñenn ñu ngi ci biir réew mi te sori Touba euh, xaar ci ñoom ci ku bëgg a ci liggéey bi lan ngeen leen di sase Lalu aw sos amu ci sos maanaam ni ni sëñ bi wax rek moom moom lañ ci tàbbee ak bëgg rek la si tàbbee su ndax kenn ku nekk bi nga ñëw ji sëriñ bi di jox sa bopp kenn yebalu la woon mm. sëñ bi wowut kenn nag ñi ngay ñëwee ci man kenn ko yaa xam sa bëgg bi xam ni nga ci nga ko ah? ndax kenn du nga nangam ngay waaye dama bëgg a jébal gis na ko ne ku la doy nga ne Diouf nga ne kaay jébal ginaa ke nag mu bëgg a dëggee sëñ Tuubaa jaare ko Cheikh Ibrahima Fall nag la toog léegi am yéen a ngi xaar ñoo xam ne parce que tamit liggéey bi dafa laaj ay ay ay oto yi li koy li koy li li koy li koy li koy toxal am ndox lay doon bi ci des it mooy euh, laaj na tamit euh, euh, xewal yi nga xamne mom lañuy xewlo fi xéewloo fii dama laaj lol tamit laaj na ay ay ki jumtu kay yi ngeen di bale yi lu melni ay balé ak ay ratoog yu mel nonu lol tamit laaj nako kon laaj na laaj na la ay ay camion ki pel yoy yëpp ay kay la yo xamne xaliss koy def ndax lolou tamit laajul tamit soñ ci mbokk talibé yi ndax defuñu lu ëpp liggéeyal sëñ touba wa lolou wér na ci lolou dafa melni daad na daad na ma liggéey boobu nag yi nga xamne ñoo jitu won ci liggéey daal wax nañ lu ci waaye fas ci liggéeyal sëñ touba mel radio yi wax nañ ko télé yi wax nañ ko ndax sétal sëñ touba nek bi ne bopal doole am fii nu toll nun ñi lii nuy liggéey kon leen ko joxee nee na laaj leen ay camion mm. dan doo màjjal mm. sëñ bi léegi la ñëw jébbal màjjal man mii léegi laa ñëw jébbal sa màjjal waaye nag nit ñi màcc na daal ko Cheikh Ibrahima Fall mm. kenn ku ne lu ci waay def war na la ñu bëgg a war nañ jël gasoil waaye ñii nag loolu dafa war nañ leen toogal oto yi nga gis ne tey kon kenn ku ne kenn ku ne am gasoil bu mën a liggéey sëriñ bu mën te génn bale itam te jox leen war a nga bale nga xam ne noonu noo fi nekk ànd ak nekk te bëgg a dégg sëriñ Tuubaa ak Cheikh Ibra Fall noonu la la waree mm. ku def nag dafa doon kenn soo danga ko waaye noo ngi woo ñëpp nag te di seen ñëpp nag xam naa lii daa door nag waaye jàpp nañu teeri bi mu amuñu yéen yi liggéey kenn ku sëñ Tuubaa rawatina jaare ko Cheikh Ibrahima Fall ndax ku liggéey xam nga soo liggéey suñu borom di bokki taalibe yi ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen balu àq te leen baal ñu di xamal ne njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp teew nañu tey fii ci pencum paaleen ci da yaakaarloo nag sëñ mm, ah, maam Ndiaye mi nga xam ne mooy moom sëñ Baara Ndiaye ñu tàmbalee fi liggéey bii nga xam ne sëñ Cheikh Jëmb Fall da ko jox njabootu Cheikh Rafal gi wax ni dafa jóge ci mun sëñ am mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba ngir ajuma ji jëkk ci weer wu nekk ñu tàmbaleel ko liggéey bii nga xam ne dañ ko nar a wéel muy liggéeyal Serigne Touba ci biir Touba di bale Touba di bale nag lépp lu fi taq-taq ci sayr ak ci baatin ñu ngi ko fas yéene génne ngir génneel ko Serigne Touba liy musiba ak mbalaa ak mbas ak lépp luy xam ne day lor di yàqalub jaam ñi ngi koy génnee Touba ci kattanu Cheikh ngir bëgg mu génn réew di ko ñaan murid yi ñuy ànd kook sëriñ bi sëriñ bi nag dafa wax ne liggéey bi daal nanga xam ne ku ci ànd ku nekk jëfal nga sëriñ Touba jëf ju ñu nangu te jaare ko ci Cheikh Rahima Fall kon nag góor nee na wutul ci xeej ji wutul ci seen daal mooy seet murid bu nangoo liggéeyal sëriñ Touba te am xolub jëfal ko ak ak jikkoy ko ak nar koo jëfal la sëriñ bi woo ci liggéey bi liggéey bi nag amul nees ci sóoboo ni ñu ci sóoboo mooy dugg ni nga duggee ci sëriñ Touba rek bàyyi sa bopp sëriñ Touba loo am defaat ko ci sëriñ Touba loolu la sëriñ bi wax kon ñi ngi nuyu sëriñ Mouhamadou Ndiaye nga xam ne moom la yàlla dogal sëriñ bi woo ko jox ko liggéey bi muy jëwriñ ji ñi ngi ñaan fanam gudd lool te li mu yéene bëgg a liggéeyal Cheikh Ibra Fall ñu def koog moom te ànd koog moom ak sëriñ Maam Ndiaye mii nga xam ne mooy moom la àndal liggéey bi salaamaaleykum euh, mbokk yi xam ne yéen a ñuy seetaan leen nuyoo bi leen euh, te ci nuyoo bi sëriñ Mountakha xalifa général des mu yàgg te ki nga xam ni moom mooy sunu jëwriñ bi tey nekkal bu Cheikh Ibrahima Fall sëñ Cheikh Jëmb ñu ñaanal mooy bu yàgg ba wér eh, dafa am nag xew-xew boo xam ni eh, dafa dafa dafa amoon ci jamono yee weesu eh, ndax sëñ Mouhamadou Mountakha joxoon njumtukaay yoo xam ni njumtukaay yu setal la ñu demee ne ay ay ay camion ba loolu ñëwee nag da ko daal teg ko ci loxol sëñ Cheikh Jëmb Fall bi nga xam ne moo ci nekkal Cheikh Ibrahima taalibe yi nga xam ne nag euh, ñoo aju ci kër Cheikh Ibra yëpp euh, daal di euh, daje jàpp ni kat loola ak tegtal la ak junj la boo xam ne Sëriñ Muntaxa da koo def jëmee ci Baye Fall tax ñu boole seen bopp nag fédération boo xam ni ñu ngi ko tuddee yaakaar naa ne mu juut làmp jëf ki ko jiite di Serigne Mate Ndiaye Ngiraan boole mbooleem nag bunti kër Cheikh yëpp. Eh, ndax xam ni Cheikh Ibrahima moom mooy reen yi dafa fekkee ni nag kër mën naa bari ay bunt waaye yëpp ca biir kër ga rek la ñuy la ñuy la ñuy soo te kooku mooy Cheikh kon ñu boole seen eh, doole bëgg a boole seen xalaat ngir liggéeyal Cheikh Ibrahima ci anam googu xam ni eh, Serigne Mountakha junj na leen ko waaye ak ci yëpp anam goo xam ni rek dem nañ ba xam ni lu jaadu la loo xam ne ci Baye Fall yi la ci dëkk bii di Touba. Euh, ndax mbirum euh, liggéey xidma day loo xam ne moom Sëriñ Tuubaa da ko da ko da ko seddi Cheikh Ibra mu wane ko te Cheikh def ci yoon yi loo xam ni euh, képp ku ko ci royut buñ la dee boo dee buñ la dee boo dee murit it yaakaar naa ni murit ga murit ga dana des ñu xam ni kon ñun lépp lu nga xam ni ak jëf la ci kër Cheikh Ibra ci kër rek bàyyi Fall yi la gën a war ñoom la njëkk war ñoom la gën a war euh, tax nag ñu bëgg a tàmbulee ci euh, weer wu dee ñu dem ci benn quartier ci Touba woo waa quartier bi yëpp ñu génn ñu bale mbedd ya ba mu set euh, jël seeni i camion tonni ko mu nekk général lay doon waaye du doon ci dëkk bi yëpp ci benn yoon comme ni ñu koy defee ginnaaw màggal ak bu màggal di jub si dañ koy def rek benn quartier xam ne Paaleen la Daaru Minam la Daaru Xudóos la euh, Sura la Gere la Daaru Marnaan la ak gaa quartier bu mu mën doon rek ñu ànd nettoyé ko ba mu set jël mbalit ma dugal ko yi nga xam ne sëriñ bi joxoon na leen ko euh, nag tàmbali la ab la ndax xam ne ni moom mbirum sëñ bi euh, njàlbeen mën naa mën naa nuru lu Euh, waaye li ñu yéene mooy dem ba euh, ceetu Touba gépp nekk ci seen i loxo nga xam ne dootuñu ko sàkkal rek benn bis ci weer wi wala dara dañuy dem ba am ay équipe yu bari nga xam ne yàlla sàkk dana bari quartier yoo xam ne dañ ko mën a euh, boole nettoyé ko ba nga xam ni ku ñëw ci dëkk bi moom da xam ni ak coppiku am na fi ndax set moom mooy li gën a Euh, farata ci jullit ndax euh, boo seetul moom sa genn jaamu yàlla bu mën a du mën a mat rawatina nag cet sa dëkkuwaay boo seetul sa sa environnement wér du la yomb loolu nag euh, Baay yi fas nañ yéene bu leen si bi doon leen ndimbal dem ba àgg ci yor ko waaw ndax commune baax ngi ci mën nañ jàpp ni commune bi la war waaye nag commune bi wax dëgg ku seet te wax waxal yàlla dëgg rek nga xam ne commune bi amul doole mën ko def ndax commune li koy jox doole mooy ay taxi ak i impôt yooyu waa dëkk bay fay te ku ne xam na ni fii moom ñi fi waroon a gën a mën a fay l'impôt muy commerçant fay yu ko bu ko jamonoy fay yu ko jotee boo demee marché Ocass genn wàllu commerçant yëpp duñu xëy ngir bañ ko fay Euh, boo xoolee centre commerciaux yi nga xam ne ñoo nekk ci marché bi wër marché bi ay boutique yu bari nekk fa ak yi nekk ci biir marché bi seeni boroom du ñu fay impôt boo waxee dañ naan ñu joxe addiya euh, te bu ñu seetloo kon commerçant yi nga xam ne ñoo nekk Dakar nekk Louga nekk Thiès nekk Ndar nekk Saint-Louis euh, di fay location di fay taxi yi ñu war a fay yëpp loola doxul diggante seen diggante ak seen addiya ñoom lépp lu ñu wootee kenn du leen ci man te euh, la ñuy def commerçant yi def fii ñu ko def ndax lu bari sëñ bi dox na seen diggante ak moom demoon na ba sax bu ñu daan balee balee màggal gi jub si commerçant yi bari dañu aj seen tànk ñu nangu sax tëj seen boutique ma leen ñoom bu ñu ni euh, lu war ñu ni commune bi moo ko war a def commune war am joxuñu ko ab dëkk bi moo ko a jox fay ñu lamp fay ñu tax euh, koo ci jàpp am na sëriñ ma leen sëriñam mu def intervention loolu nag du loo xam ni moom mooy doxal alal ju mbooloo bokk waaye loolu lépp ñun suñu yoon nekku ci ñun moom leen war rek mooy euh, lépp loo xam ne alali Sëriñ Tuubaa la rek la ca war lépp ci càmm ci set ak ci lu mën a doon rek ñun ñi nga xam ne ñooy njabootu Cheikh Ibra ak ñëpp ñoo xam ne képp koo xam ne nangoo na ko ànd ak ñun ñu jóg taxaw ca loola ba sëriñ bi amee ko nu mu ko bëggee loolu daal mooy yéene yi nga xam ne moom la taalibe yi am ci dëkk bi di tàmbali ñu ngi tàllal loxo ñëpp nag Euh, bëgg matériel bu doy ay camion benn ay camion tasseuse ay bourvette ay ay ay ay balais euh, maanaam lépp loo xam ne daal jëm na ci wàllu nettoyage euh, moom ku ko ci ku ci mën a jàpp rek ak noo ca mën a jàppee eh, nga jàpp ca bu dee xaalis nga mën a joxe nga joxe xaalis te it ñëpp nag takku di ci participer parce que mbir la moo xam ne doole ak mbooloo moo koy def loolu moom wax dëgg manqué wut manqué wut waaye dañu bëgg rek ñëpp barkeelu ci ndax njëriñ la loo xam ni euh, bu sañoon ñëpp bokk ci te ku ne xam ak di setal barab euh, lu ci la ndax man gis kër di kër suñu alifal mboor ku tawat façon tawat bu la mën di xam tawat yaram la wala tawat yi xel boo mosaan ñëw du la du la jox saafara du la jox ñaan da lay ci bi rek ak ci kër gi ngay boo bis bo xëyee mu jox la balé nga xey balé kër gi ba mu set bu ñu sëñ bi santaane liggéey eh, nga nga nga dem loo man nga def ko eh, bay sa borom tàggale la taw tawat nga xam ne moo la daloon mosuma gis kuñ fi indi mu tawat ñu la ko ci yoon wo te wëru waaw kon nak ñu xam ni li lu lu lu defar eh, yaram nga muy defar jëm la muy defar ruu la waaw bokkul nag ak pay gi paya bi nga xam nak mom Serigne Touba kep ko liggéeyal mu lu la ko te yàlla may ko kattan ak doole yi mu am lum la fayee kon daal loolu laa ci doon barkeeloo te xam naa ni kii sëriñ euh, euh, man Ndiaye euh, Birane ak sëriñ Maam Ndiaye sëriñ Baara nga xam ne ñoo bokk ci yi yaakaar naa danañ gën a indi ay leeral. gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di ñaanal sëriñ Mountakha mu yàgg fi te wér di ñaanal sama sëriñ sëriñ Sidi Abdoul Ahad ak njabootu sëriñ Tuubaa yëpp ñu yàgg fi te wér di rafetlu bu baax a baax liggéey bi ku nekk gis na tey ajjuma ji nga xam ne mooy njëkk ci eh, rajab ni Baay yi eh, def te daa ko te dëkkee ko naka jekk mooy eh, li ñu programme bi ñu jël ajjuma ju njëkk ci weer bu nekk ñu dugg ci dëkk ci quartier bi defar ko ba mu setal ko ba mu set naam ci la leen fekk parce que setal bi yëpp ñoo ko mas di def bu magal ak Touba di ñew gis nga ni ñi def dekk bi bu serigne bi soxla bi wa Touba ci kanam wote di liggey ba liggey bi xaw leen ëpp doole gis nga dañu mujj wo bay Fall yi ci travaux yi ñu liggey ko niñ ko wara liggey ba ñu am ci liñ bëgg loolu nak moy seenu doxin naka jek li dafa nek lo xam forme bu bes la buñ tambali rek bo xam fekk leen ci liñ doon def ah ñu gis nga tay di ku ñew xayra ak paale donc gis ni ñu ni ñu tambalé ni ñu def ci weeru rajab bi manam dëkk bëpp bëpp quartier bëpp bëpp ñëpp génn nañ kilifa yi señ fallo ngi ni taxaw ak soxna ba and ak talibé yëpp ñu liggéey ak kilifa yi bay Fall yëpp ñu liggéey fi liggéey bu mucc ayib loolu nak bu ñu ko défé dafa melni ni commune bi lañ ko défal ndax commune ko sétal warna sétal ku sétalul commune dafa wara sétal ñom nak japp nañ ci liggéey bi bu wër wër génne nañ nit ñi génne nañ jël moyens yi commune bi génnee ay moyens li mu am ci logistique ak ñoom ñu génne seen moyens ñu fexe nañ ba tey ji yaakaar naa ne ko xool mbedd yi xool quartier bi da nga xam ne lii ñoom rek ko man ñëpp ko bëgg ñëpp bëgg seetal waaye ni koy defee ñoom rek ko mën ne noonu ah ñuy rafetlu bu baax a baax di liggéey bi di ñaan rek kilifa yi nga xam ne ñoo leen jiite ah ngërëmal sëñ Tuubaa liñ ci wut yal na leen ko yàlla may ñu ngi sant bu baax a baax sëriñ Fallou ñoo ngi lay sant bu baax a baax gis nañ taxawaay bi rafet na te du ci lii rek mhm. ci wàll yëpp ci dëkk bi lépp foo xam ne nii séen nañ la fa rek gis nañ fa sa taxawaay boo xam ne am na tàmbali waaye amul bu yemukaay ñu ngi lay ñaan nag nga ñaan daal ci eh, daraje Cheikh bi rek ci si Sëñ Aliou ñu am ci ngërëmal sëñ Tuubaa te lii sax dàkk loolu loo am solo jërëjëf bi ñu xëyee moom dugg nañ mbedd yu bëri moom waaye nag liggéey bi moom kowe na daal lii suñ doxaa di wax na sama tay ji na gàcce la sama démb dal la nit fédération bi ñuy liggéey si Ibrahima Fall hmm. daal ku ci ñëw boo demee boo ñëwaat da nga indi yeneen mbooloo xam ne ne dëgg la te làmb daj te ku daj si Ibrahima Fall yem mooy liggéey bi kon daal ñoo ngi annoncé képp koo xam ne yaa ngi xool si image hmm. mbooloo ma mën di yor kuréel bu mën di doon na ñëw sóobu ci kuréelu Ibrahima Fall gi ñu dox liggéeyal borom Tuubaa Assalamualaikum. ñun ñëpp di ziar ñëpp nag jiital ci nuyoo bi sëñ Mountakha Mbacké ñu nekk sëñ Touba ko ñaanal sama borom dolli ko kon ak wér bu Cheikh ak sëñ Cheikh Jëm Fall ñu fi nekkal Cheikh Ibrahima Fall sama borom dolli ko yàggal te wéral ko liggéey bi ñu ci ndigal ñu Jëm bi seetu dëkk bi daayira bi nga xam ne moo ko jël yoral ko boppam mooy daayira Cheikh Ibrahima Fall fédération Cheikh Ibrahima Fall lamp ndigal ñu yor liggéey bi dañu mën njaay njeejaan jiite ko kanam moo ne ci kanam di jëwriñ ji jiite liggéey bi ak i ñu mu àndal ñëpp nekk ci ginnaawam liggéey bi nag ñu woo ñëpp bàyyiwuñu kenn képp koo xam daal ñëwoo yaa ñëwul waa ñu tal nañ loxo ñëpp képp koo xam ne gëm ko seen tubaab si yàlla faal muy seen nga ñëw ki ci bokkul daal mooy ki ñu woote ñëwoo wala ki ko yëg te ñëw salaamaaleykum ñu ngi jaar baax baax waaw ñoo ngi jógee Touba Darou Marnane foofu lañ jógee ñu ngi jaar baax a baax danoo ñëwoon ci liggéey bâtiment sëñ bi Samba boobu buñ ñu joxoon buñ fi jógee nag ñu ni mbalem Cheikh Ibra Fall mi dañoo woote mbalem Cheikh Ibra sax ajjuma ji jëkk ci weer wi ñu dikk teewlu ci liggéey bi ñu dikk rek barkeelu ci liggéey maam Cheikh Ibra Fall bi xam ni bëgg boole gëm ak jëf daal di maam Cheikh Ibra Fall wax moo moo mooy mooy mooy yoon wi nanu boole bëgg boole gëm ak jëf xam ne fu waaye yem yaa fa yemale sa bopp maam Cheikh Ibra Fall rek kay bundi Babul Mouridina daa bay maam say Njaay bàyyi mu Musaa Fall maam Cheikh Fall bàyyi góor kenn du moom Fall parce que ndax Serigne Saliou nee na ci Serigne Touba rek laa ma sa dégg mu ni sunu bàyyi Cheikh Ibra Fall kon Cheikh Ibra Fall mooy bàyyi kon nan góorgóorlu ci pastéefu maam Cheikh Rafal bi rek ndax euh, tegaat na ci ni xam naa yi sëñ euh, maam Cheikh Rafal la ci sëñ Tuubaa mujj fa waaye lam fa am ak bëggam ak pas-pasam ak ko rek kon murid yi nañuy doxe ak bëgg ak pas-pas rek lu bëgg am ci yoon yi am ko mi loolu waaw waaw waaw waaw waaw dañoo màggante lu ëpp mais ñu wa kilifa yi fi teew bokki jullit yi bokki taalibe sëriñ Fallu Fall moom sëriñ Aliou Fall ak rakkam yi mu toogal ak doom ak bokki taalibe yi sëriñ Mbàkke Njaay ngi di jéngiñ di suñ Abdou Rokhaya Fall ma ànd ak sëñ Masamba Njaay ñun sëriñ yóbbu Fallou la Fall ba si ak njaboot sëriñ Fallou ngi nuyu nuyu ci ndigalul magam di ab sëriñam muy sëriñ Cheikh Jëmb Fall xalifa généralu Baye Fall ci liggéey liggéey bu màgg bi nga xam ne day ndigalul sëriñ bi ndigal li nag doon leen benn bal nga jëm ci ñaari picc waaye Serigne Fallou nee na bi li jógee ci ciy jëmb Fall moom mi muy kilifa bi kër Serigne Touba nag muy si ma soxna Maam Isa Mbàkke ëf kafe li waral loolu nag mooy sunu maam si Ibrahima Fall dafa am lu mu waxam dafa wax ne ah doom seen njaam gii bu ngeen demee ba ca kanam dañu muut sang ba dàqali ak sang waaye bu boobaa nag doom na ngeen na ngeen ko rek na ngoo dooni jaam te Sëriñ Moussa Ka wax ni ñanguur mu góor ak mu jigéen dangar ya ndax mu ngi kat xàmmee na leen ca ya ñu ne déedéet mu ne jaan bu doon dóor ko ñu dóor mu rey la ku fekk jigéen ñi doo am yàlla benn bal nga dem ñaari picc nag mooy sëriñ bi gis ngeen Mamadou Mountakha sëriñ bi sa daat yàlla na fi yàgg te wér dafa jël ndigalul sebal Touba teg ko ci loxo suuf si dimb mu ànd ak mboolem njabootu borom Touba Xaadimu Rasuul gépp lépp ñi wuyoo Fall ak ñi wuyoo na leen yàlla dogal ñu nekk ci liggéey boobu ak mu ne ñu dafa def defin bi nga nii ni ni ñuy def bu màggal bi ñëwee jubee nga daje di sobal Touba dafa def ñeenti fan ba juróomi fan dañoo bëgg nag suñu Mourou Ndiaye Ndiédiène nii nga xam ne mooy jiitu daje fédération ba maam fi Ibrahima Fall Babul Mouridina te mboolem buntu kër yi maam fi Ibrahima Fall yëpp bokk ci fédération bi weer wi ñëwati. ajjuma nga jiitu ca weer wa nga daje fi tàmm liggéey bu nu balee ba ngoon bu ko dee ñëw ñëw def ko bu nu demee ba yegg ca weeru màggal ga dina fekk male bi woyof loolu mooy ndigalu sëriñ bi loolu nag sëriñ Fallu nii benn bal nga dem ñaari picc mooy ndigalu sëriñ Tuubaa moom njariñ rek njariñ rek te ci lay bàyyi ko la ca toppaat mooy Cheikh Mamadou Mountakha lii nga xam ne ñëpp ñu koy déggandoo ci jamono ñu ne tawat la ñu ne mbas la te li ci jiitu gën koo mën a saafara muy ak set looloo waral nag ñu ne kon te ak set fu ñuy setal Touba wala dëkk set borom Touba setal na ko ci baatin comme noo ko war a setal ci sayir ba benn mbas wala ñaari taw yoo xamante ni day bañ ak takk du ñëw Touba mbaa mu jeex fa tàkk muy setal Touba lépp setaale gis nga mbir mi ci kër du mbooloo mu ci ab saal danoo nekkan ca waar wa di setal Touba ngir lépp loo xamante ni dëgg na dëgg mën na Touba te sidul ci Sëriñ maa sidul ci baatin njabootu maa si Ibrahima Fall ànd ak njabootu borom Tuuba gi jënd ko mbooloo set bis ñoo dañoo nekk ci pencum Paaleen nii ngir santante gërëmante ci ci ci ngir su gàtt liggéey bi li firndeel nii ñëpp a ngi fi daje Sëriñ Fallu ñu ne mboolem njabootu kër maamam gi ñëpp a ngi teew njabootu Sëriñ Mamadou Moustapha Fall ñëpp nga teew njabootu Sëriñ Bassirou Fall mu Cheikh Ibra Fall ñëpp nga teew njabootu Sëriñ Momar Talla Fall ñëpp nga teew njabootu Sëriñ Ablaye Fall Ndar ñëpp nga teew njabootu Sëriñ Alam Fall ñëpp nga teew njabootu Sëriñ Aliou Fall Mbawar ñëpp nga teew Sëriñ Fall nii teewal leen fi njabootu Sëriñ Mbacke Fall ñëpp ngi teew njabootu sëñ Moodu Fall Mbella ñëpp ngi teew njabootu sëñ Abdou Sakor Fall ñëpp ngi teew njabootu Mame Saliou Fall mu Mame Ibrahima Fall ñëpp ngi teew njabootu Mame Saliou Fall Daaru Kofo rek Mame Ibrahima Fall ñëpp ngi teew ak mboolem nag seex yi nga xam ne dañoo aju woon ci Mame Ibrahima Fall baabu murid yi nag kenn nit gisul kon nag na nga xam ñu xam ne liggéey bii noonu lañu ko liggéeyee mooy liggéey boo xam ne njaboot booba bi ñu teewee ni ko suñ Fallu waxee ci ndigal si Mamadou Mountakha dajewuñu ci am néeg dajewuñu ci baas ci waaru Touba lañ daje di setal Touba ngir lu bokk ci Touba na set dañ ñaan ci barke si Mamadou Mountakha mi nga xamante ni nag Fall suñ Touba lu mu yëkkati Saalum Ibrahima Fall dama ciy jàppale te si ñun takkaan bi tawat ji duggee def na ci alalam def na ci yitteem def masque def na masque raxas wala sel def na lépp digal ko dooma yi loolu yi nag tooy bi bu baax bii di ci gëmbu faal jigéen bii di suñ ci gëmbu faal moo ñii la ko ci jàppale soo demaa isa mbàcc nii de rakkam moom itam jóge kër suñ loolu soo di këri nekk si sëriñ Tuubaa wane ne njabootu borom Tuubaa gépp nag ñu ko limee noonu noonu la ci ñëpp ànd ngir jàpp si moom mu tàggal ci liggéey bi nga xamante ni sëñ Tuubaa nee na malaka ni dunya wa uxra sama bi maa moom àdduna kon a dajale sëñ Tuubaa wax moo war a taxaw ci jële ko fi daf ñu mën tàkkaar na ko ci kon a waroon ko caa jàppale ci loolu la ñu nekk te nag soo ma nag la xam ne maam ju baax ji borom Touba sunu maam ju baax ji maam si Ibrahima Fall ba mu ñëwee Mbàkke Kajoor la mu jëkk a defal borom Touba Xaadimu Rasuul muy buub buub la ko jëkk a defal firnde ji ma ci am nag sa mag baax ji moo ko wax ci dooru bayre ma fekke Alaaji Maam Cerno Mbàkke mu sëñ Cheikh Awa Balla nee na nee na Cheikh Awa Balla ko ni maam Thierno Birahim nee na ca la bis yëngal Fall ñëwee lu mu dëkk def ci guddi ga nga xam te ni booba jaayante bu ak Serigne Touba yi nuyoo naan moom lu mu dëkk def kër ga ba mu set wicc root ndaale ba ñu fees dell kon nag li nga xamante ni moom la maam si Ibrahima Fall dëkk defal borom Touba muy buub bu ñu jëlee fa si buub jox na ko te muy ko setal set ko sellal sell loolee nag kon ci ci jëmm faal ak ku mu jomoote dana ci dana ci dana ci dana ci teg ab tànkam dana ci xar tànku tuwéew kon suñ fàllu faal mbawoor nee na lii daal lu ko bëgg suñu fiyee daal bu ñu bëgg dara lu dul ni ko suñ bi bëggee nan ko defe nan daga ca waaroo bu liggéeyee juróomi minute juróom bi minute mu santante diini ci kër ya kon nag rendez bi mooy mooy dama na ba weer wi teroo ajuma ji ci jiitu nanu dajewaat wi setal gën a setal Tuubaa rek kon nag digal naa ko suñu juru baaxoon nag ci moom doo taa Mbàkke aleyhi ku fi setal lu toll ni ta tàggum përëntaan bi gën a tuuti ku setal Tuubaa lu toll noonu ñu tabaxal la kër ci kër ci àjjana kon nag ndigal njariñ laa moom bu ndigal jógee njariñ jóg na loolu daal bokk na ci ndigal leer nga ci suñ ci jëmb faal tegal na ko ci loxol suñ faal faal moo war ne ko boo demee nag ku fa nekk suñ tubaab na a teg baat boobu yi ci loxoom mu teg ko ci loxol jigéenam bii di di di rakkam moom soxla ma sa mbàkke am na café mu ànd ñun ñëpp di liggéey sëriñ bi liggéey sëriñ bi nag war na góor war na jigéen kon nag dana rahmatan mina laahi wa min xayrin mina dunya wa ma fiha janna Jadi jërëjëf